الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñi ngi dellusiwaat ak yéen ci suñu téere bi ñuy tuddee risaala bu ibn abi zayd alqayrawaani rahimahullah ñu toppoon ko ba yegsi ci ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom ñett baabun fi lxajji wal umra bunt bu jëm ci aj ak umra tey jii mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2019 di tombeeg ñaar fukki fan ak juróom ci rabi ustaani ci 1441 gannaaw ba ñu santee suñu boroom subhanahu wa taala ci mu wërsëgal ñu ñu daje ci am néegam di jàng la nga xam ne mooy diineem ca mooy daje bi gën a màgg bu jullit di daje li ñuy tudde xilaqu zikr mooy dajeb zikrullah ba ca gën a màgg mooy ba ñuy jàngale lu dagan ak lu xaraam kon ñi ngi sant yàlla ci loolu mbokk yi it ñi ngi koy jaarale ci facebook bi en direct gannaaw loolu dana dem ci la nga xamee ni nii mooy réseau yi aju ci jàkka ji ak ci yeneen ñooñu nga xam ne ñoo koy taxawee yal na yàlla subhanahu wa taala nangul leen kon bu dee bokk nañ ko gis muy juróom muy vingt-huitième bunt bi ñu jël suñu bind bu jëkk mu ne kon baabun fil hajji wal umra bunt la ci aj ak umra aj mooy jubluwaay ba nit ki di jublu daanañ ko waxit fa nit ki di bari dem umra mooy ziyaare ci arab mi ngi noonu mu ne nag wa xajja baytillahi alxaram aj la nga xam ne mooy néegu yàlla ba ñu warmaal allazi bi bakkata ba nekk ca bakkata ca mooy ca makka faridatun ala kulli man istataa ilayhi ila zalika sabila farata la ci képp ku am kàttan ci loolu aw yoon min al muslimin al ahrar ci jullit yi nga xam ne ay góor lañu al baaligiin ñi nga xam ne dañoo majeur marratan fi umrihi muy benn yoon ci dundam yépp wa sabilu tariqu sabila sabil mooy yoon boobu mooy ku am ci pexe mooy tariqu saabila mooy yoon boo xam ne bu wóor la wa zaadul baali baaliga baaligu ila makka ak yóbbal bu la mën a yóbbu ba nga yegg makka wal quwatu ala al wusuli ila makka ak am kattan ca mën a yegg ca makka imma raakiban aw raajilan na doon bu boobaa da ngay war wala ngay dox ma asi ma asihatil badan ànd ak it la nga xam ne mooy wér gi yaram mbokk kon day wax fii ñu aj néegub yàlla ba nekk ca bakka loole farata la yaakaar na baatu bakka bi dana leen fàttali benn way boo xam ne ci ñun la bokk wax wax joo xam ne su ko tuubul loolu mën na ko sax génn ci diine te mooy doomu jurit bu taxaw naan ndax nit ñi xam nañ fu ñu war a aje ji taxaw naan bakka bi yàllay wax mi ngi gën a jege bukka mooy mur de lamentation bi juif yi loolee mbokk ak kéefér la bakka arab léeg-léeg miim da koy weccee ba boo ne bakka ak nga ne makka ci arab yépp benn la doonte ne ne borom xam-xam yi it dañ ne bakka mooy place bi kaaba gi nekk nga noonu bakka mooy place bi kaaba gi nekk amma makka mooy li ko wër yépp te jii boo jóge woon Kaolack jëm parcelle da nga na fuñ la foo jëm naan maa ngi jëm Dakar nga jëm Géejawaay maa ngi jëm Dakar maa ngi jëm Dakar mais boo ñëwee ba nag am na lu ñuy tudde Dakar ville loolu kon moom mooy bakka mooy place bi Kaaba gi nekk Makka mooy alxaram bi nga xam ne c'est des kilomètres waaye ala kulli xaal mi ngi noonu mu ne loolu nekk na farata ci koo xam ne am na ci kattan ci jullit ñi ab yéeféer ba je yéeféer ba je Makka it égal zéro mu doon nit koo xam ne gor la te loolu it mi ngi noonu ndax ki nga xam ne dafa nekk jaam moom at ji waru ko su ajul amu ci benn bakkaar mi ngi noonu borom xam-xam yi nee nañ sax jumaa sax waru ko ila axir fokk it mu doon ko majeur waaye kooku nga xam ne majeur gulit su ajee dana am yoolu aj waaye ajug farata gi moom wàccugu ko heure bu majeur yi day dem aji jiwaat amma ku mën a aji yóbbu sa njaboot loolu tuyaaba ju rëy la mi ngi mel ni ngay julli ji jàkk yóbbu sa doom tuyaaba ju rëy la tant que majeurugul julli gi waru ko waaye nag fu mu jullee ñu bindal ko yool bi ñuy bindal mag ñi ñu ngi noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn soxna daje nag moom ca Kaaba ga mi ngi gàdd benn doomam mu ne ko yi mu yàlla yónni ndax kii dana am yoolu acc mu ne ko aha kay yow it da nga am yoolu dimbali gi nga ko dimbali ba mu àcc loolu kon mi ngi nekk farata benn yoon ci dundu doomu aadama bi loolu di yombal bu suñu borom yàlla yombal diineem jaamu yàlla yépp day deme ko dikk am na sax yuy baamu ci benn bis ay yoon lu mel ni julli zakat at mu ne mu war koor at mu ne mu war amma la nga xam ne mooy aj makka benn yoon la war ci dunduk doomu aadama bi leneen loo def naafila la li suñu borom ni ku am kattan ci loolu mu ne kattan gi la ci jiitu mooy yoon bi wóor heure bu yoon bi nekkee ci danger aj makka waru la te jullitit amul droit di yóbbu boppam ci yoon boo xam ne yoonu danger la lenn la ca borom xam-xam yi génn mooy jihad fi sabilillah ki génn di jihad fi sabilillah mi ngi ci yoonu danger te mooy bakkanam mën na fa des yarama mën na fa yàqu waaye dañ ni la ngay sàkku ji ci teddaange lislaam loolu moo ëpp doole sa bakkan bi kon même bu sa bakkan da nga koy risqué da ngay risqué sa bakkan ngir teddaange lislaam amma nag bu dee leneen lu dul loolu masalan lu mel ne li xew suñu doom yi tey loolee mbokk jaaduwul mooy mu leer na la ne maa ngi nii nar a jaar ci désert bi wala nar a jaar ci géej gi ca au moins am naa cinquante pour cent de risque ci ne damay dee jullit mbokk du dugg ci loolu mu ngi noonu am ma nag bu dee ne amoon nga kuulu ci ne da nga dem loolee moom lu baax la boo ci dee it dee nga ci lu yàlla gërëm waaye daal bu dee ne chance ya moom amoo ko ci lu la wóor waroo dugg ci loolu gannaaw ba nga am mooy ci yóbbal bu la mën a yóbbu ba yegg mag te loolu it dañoo bëgg képp koy tukki yóbbulu ndax suñu borom mu ne tazawwadu doonte ne fa inna xayra zaadi taqwa il faut nga yóbbulu yóbbulu boobu it borom xam-xam yi daan cay boole su dee ñoo xam ne su dund da leen a war mooy nga yëg ni sa gannaaw duñu doon ñoo xam ne dañuy doon ñuy tumurank mooy ñu am loo xam ni na doon yaa leen ko bàyyee wala ñoo ko moom loo xam ne dañ leen mën a yor gannaaw ba nga am kattan ci mën a yëgg makka na doon da ngay dox wala da ngay war ca am na dëkk yu jege makka yoo xam ne même boo amul loo war man ngaa dox ba yëgg makka te ji masalan bu doon te ne Saint-Louis la ñuy aje ji makka ku amul loo warit boo jëlee sa tànk ca am sa sa kattan bala ngaa dox semaine yegg Saint-Louis kon imma da ngay war wala imma da ngay dox loolu lépp nga ànd ak wér gi yaram ki feebar moom aj waru ko ngi noonu même boo amoon moyen yépp ba waxtu wi war a at nga daanu feebar suba ba at du la war ci wàllu googu loolu kon mbokk mooy suñu bind bu njëkk incha allah ñu jël suñu bindu ñaareel mu ne wa innama yu'maru an yuhrima min al miqaat dañu lay digal dañ koy digal moom mi aje mu daal di armali ca miqaat ba miqaat mooy place ba yonent bi limité ni fii bu fi kenn romb ca armalul wa miqaatu ahlu sham wa misra wal maghrib juhfa bu dee ñooñu jógee sham muy Syrie ak Égypte ak ak ak Maroc ñooñu ñëpp place bu ñuy wax juhfa fa la ñuy armele fa in marru bil madina fal afdalu lahum an yuhrimu min miqaati ahliha min zil xulayfa su dee nag ñoom dañuy jëkk a jaar madina comme waa Sénégal la gën mooy nañ bàyyi ba yegg ci miiqaatu waa madina muy li ñuy tuddee zil xulayfa wa miiqaatu ahlul iraq zaatu irq bu dee waa iraq place boobu la ñuy tuddee zaatu irq wa ahlul yaman bal bal yalman foofu la ñuy armale wa ahlu najd min qarnin yooyu yépp kon mooy foofu la ñuy armale ñi nga xam ni dañoo jóge ci côté Arabie saoudite wa man marra min haula képp koo xam ne romb na ci ñooñu bil madinati ca madina fa waajibu alayhi an yuhrima min zul xulifa iz la yata'addaahu ila miqaatin lahu ndax du ko mën a romb jëm ci beneen miqaat mbokk gis nañu ni ci organisation l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa délimité ay place mooy nit ñi buñ jógee seen dëkk di aju ji makka du ne sa kër rek ngay armale lii araam ci ku armal yépp di la araam waaye dafa am ay gox yum limité yoo xam ne moom moo wër makka ne ñi jóge fii su ngeen jógee seeni kër ba yegg place sàngam yéen ñépp armale leen foofu utal ko ay place ba baa muy wax waa Madina yéen armale leen Zul Xulayfa ca mooy lu bari sénégalais yi fii jaar am ma bu dee ne yow sénégalais bi nga xam ne da ngay wàcc jidda foofee day suñ jamonoy tey ji am na yenn borom xam-xam yoo xam ne def nañ seen fatwa ci ne nit ki mën na armale jidda waaye nag bu ñu xoolee la leen jiitu ci la ëpp ci ñoom dañ ne déedéet yow boo yegsee jidda romb nga miqaat bi looloo tax koo xam ne dafay nar a wàcc jidda dañ naan ko armalal sa biir avion mi ngi noonu bu dee yére yi mën nga ko solo sax sa kër soo demee ba ci place bu doon lu mel ni Sawuja ñoom dañuy annoncé ne yegsi nañ ci miqaat bi su ko defee nga doog a wax labbayk allahuma hajjan aw labbayk allahuma umra ila axiri loolu kon mooy la nga xam ne moo aju ci wàllu miiqaat yooyu donte ni miiqaat bi dafa am ñaar mooy miiqaat ci wàllu temps ak miiqaat ci wàllu la nga xamee ne nii moom mooy place aj makka bala nga koo mën a armal dañuy woor ba wari premier jour korité su la neexee armal dem makka amma avant loolu loolu armal jëm makka jotagut loolu moom la borom di wax naan alxajju ashhuru maalumaat su ko defee mooy korité ak diggi ak tabaski ñu ngi noonu gannaaw ba nag boo yeggee ca place ya nga doog a armale ca place ba nga xam ne nii yow gox boobu nga jóge su ñuy jël beneen bind wa yuxrimu lxaj xaaju aw almuctamir bi isri salaati faridatin aw nafilatin ki nga xam ne day aj wala muy omra day armal gannaaw jullig farata wala jullig naafila yaquulu labbayk allahuma labbayk gannaaw bu ne wuy si naa la yow sumu bo suñu boroom ca maa ngi sax ci di la wuy si labbayka la sharika laka labbayk wuy si naa la amul kenn ko yeyoo amul kenn koo xam ne nekk na ñel la bokkaale maa ngi sax ci di la wuy si inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk mboolem cant yi ak mboolem xéewal yi ñeel na la nguur gi it léppam ñeel na la ca la sharika lak loolee bokkaale woo ko ak kenn wa yanwi ma araada min hajjin aw umra gannaaw ba nag mu yéene la nga xam ni moom la yéene ci ndax day at wala day umra wa yu'maru an yaxtasila inda al ihram dañ ko digal mu sangu ca ba muy armal qabla an yuhrima avant muy armal wa yatajarrada min maxiiti siyaab mu daal di summeeku ci lépp loo xam ne dañ koo ñaw ci ay yére wa yustahabu lahu an yaxtasila li duxuli makka sopp nañ ci moom mu sangu ngir dugg makka wala yazaalu yulabbi dubura salawaat du deñ di wax labbayka ci gannaaw julliya wa inda kulli sharf ak ci gannaaw fépp foo xam ne aw tund la wa inda mulaqaati rifaq ak daje ba muy dajeeg ay àndandoom wa laysa alayhi kasratul ilhaax bi zalik doonte ne nag nekkul ci di war ci moom mooy la nga xam ne mooy taraayu di ka baril ba loolee sonal ko mi ngi noonu muy ilhaax kon mbokk fii day wax ne ki nga xam ne dafa bëgg a aj makka bala armal di wax labbayk allahuma labbayk sopp nañ mu julli farata ba pare wala mu julli naafila ba pare gannaaw ba nag lay wax wax ju màgg jooje ca mooy yàlla wuyusi naa la ca maa ngi sax ci di la wuyusi ca loolu mooy màndarga jullit mooy ki nga xam ne dafa wuyu yàlla ci lépp lu ko yàlla sant heure bu yàlla ne yaa ayyuhal lazina amanu imma am na lum lay digal wala imma am na lum lay tere mi ngi noonu maa ngi sax di la wuy si amoo benn bokkaale sant yépp yow dong la ñeel ndax xéewal yépp ci yow dong la jóge suñu borom daañ ko sant ci ay jëfam sant ko ci ay dogalam sant ko ci ay xéewalam mboolem nguur ci loxoom kese la nekk amul kenn ku mu bokkaale dara gannaaw ba nag nga yéene ci ne yàlla maa ngi ñëw ngir aj wala umra wala ma boole aj ak umra te loolu la ñuy tuddee tamattu mi ngi noonu moom détaillé wu ko fii waaye ñetti façon aj moo am am na lu ñuy tuddee ifraad mooy koo xam ne aj kese la def te loolu la lay jàngal ci bindu tey bi koo xam ne aj kese la def am na lu ñuy tuddee tamattu koo xam ne daa boole aj ak umra am lu ñuy boole qiraan mooy koo xam ne daa lënkale aj ak umra mu ngi noonu qiraan ak ifraat la ñuy def benn la la leen wóotale mooy yéene ca ki def qiraan fokk mu rey waaye moo kii def ifraat mooy aj kese benn lañu looloo tax mu ni ci war a armalit dañ koo sant mu sangu ca kooku même bu doon jigéen na daa dem ba fa ñuy armale gis baax teewul dañ naan ko sangul doog a armal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy ba muy aj ajam ga bokkoon na soxna abu bakarin saddiq muy fatima bintu umaysin asma bint umaysin gis nañu ni dañoo dem ba jub fa ñuy armale mu wasin benn doom boo xam ne aboubacar mi ngi ko tuddee suñu yonent mu muhammad ibnu aboubacar yonent bi alei salatu salaam ne ko na nga sangu comme ni nit ñi sangoo gannaaw ba nga dem aji ji lu ne mën nga koo def sauf wër kaaba gi li ñuy aj yépp mën nga ko def loolu mi woon ne jigéen bu dee dafa dem makka yàlla dogal mu gis baax day dem bu demee mën na daw safa ak marwa daal di dem arafat muna yépp kaaba ga nag moom bala koo mën a wër fokk day làpp mi ngi noonu loolu it dañuy wax ci ki nga xam ne dafa am dërëti wasin kon loolu nekk na loo xam ne nii sopp nañ ko ci moom mu sangu bu dee góor a mu summi ay yéreem yépp daa di taraxlaayoo benn sër làmbaayoo beneen sër muy ñaari sër kese loolu la ñi kiy armal di sol lépp lu ñu ñëw du ko sol du doon du sol culotte du sol silip du sol dara dafay waddu rek ngiri bokk ak makka bokk na la muy gën a feeñal mooy toroxlu ci borom bi toroxlu ñeel borom bi ak it wane ak suufi jullit ñépp bokk bokk benn bokk benn loolu bokk nga xam ni yonent yépp def nañ ko gannaaw ibrahim yonent yi def nañ ko suñu yonent alayhi salaam ànd ak sahaaba yi def ko woon ko waaye yal nañ yàlla musal ci ayu liy génne Sénégal Sénégal day liñ fiy wax moom xaw ma ndax lañ koy wax feneen waaye liñ fi wax rëy na Sénégal rek lañ ñemee gis kilifa diine ko taxaw naan ah xam nga nag wax dëgg yàlla ma gëm jëmm dem di wodd rek waaye loolu daa soof waay man daal aj màkk moom mi ngi noonu mi ngi noonu man duma aj màkk kii ñëw ne nee na daal dafa ne ab sëriñam man daal damaa demoon Omar waaye coono ba ma fa gis moom aj Makka moom pare naa ci mu ne ko sëñ bi na ko waaw ya yaag mën a kan ah ñu ngi noonu waaye xam nga góor gu dem di wodd loolu moom daa soof gars yi reetaan fettaxu mbokk loolu loolu loolu jémmi na dayoo loo xam ne yonent bi alei salaam bi mu ko defee nee na yéen a ngi seen yoonu Ibrahim mboolem yonent yi ñëw gannaaw ba def nañ loolu yow nga ne daa soof yow rek yaa soof ala kulli xaal suñu borom subhanahu wa taala lam yónnee woon ab yonentam mooy loolu mooy ak toroxlu guy am ci acc looloo tax nga naan labbayk allahuma labbayk di wane ko yaay ab jaamam nga gannaaw ba it loolu dañ ko war di biral ci gannaaw julli di ko war a biral heure boo xam ne ñu ngi yéeg ay place di ko biral heure boo xam ne dañoo daje ak nit loolee mi ngi noonu donte ne du nekk lu ñuy yëkkati ci kaw wala di ko wax a wax a wax ba mu jaaxal la des koy wax nank rek di ko répété nank mi ngi noonu labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak mi ngi noonu bu dee yum yor téere ñu jël beneen bind mu ne fa ida daxala makkata amsaka an talbiyati xatta yatuufa wa yasa heure bu duggee makka nag mu arrêté labbayka yim doon wax ba baa wër kaaba gi daw safa ak marwa summa yuwa yu aawiduha gannaaw ba mu jëlaat ko xatta tazula shamsu min yawmi arafa ba baa jant ba di jeng ci bisu arafa wa yaruuxa ila musallaha mu daa di gont jëm ca julli waayu arafa wa yustahabu an yadxula makkata min min min kidaa'i saniya ab place la boo xam ne fa lañ koy duggee ca kaw alati bi ala makka booba nga xam ne ma nga ca kaw makka wa ida xaraja heure bu demee bay génn xaraja min kudda mu génn place bi wax kudda wa in lam yafal fi lwajhayni fala xaraj boo ko deful ci ñaar yi wax yépp it amul benn ngant ci loolu qaala fa ida daxala makka fal yadxuli almasjid alxaram su déggee makka mu dugg ca masjid alxaram wa mustahsan sopp nañu an yadxula min baabi bani shayba mu duggee ci bunt bani shayba fa yastaslimu alxajar al aswad mu daal di foon la nga xam ne mooy xajarul aswad bi fiihi ca la nga xam ne moom mooy gémmiñam in qadara su dee am na kattan ci loolu wa ila wada yadahu alayhi su amul kattan mu teg loxoom ci kawam suma wadaaha ala fiihi gannaaw bu mu teg ko ci gémmiñam min gayri taqbil ci lu àndul ak mu koy fóon mbokk kon day wax fii rek bu noonu da ngay dugg Makka fii ngay duggee ak fii ngay génne loolu moom xam nañ ni nekkatul ci loxo kiy aju ji mag loolu moom mi ngi aju léegi ci autorité sowu jeen yi ñooy xool fa nit ñi jaar waaye yow amoo choix ci fii lay dugg fii lay génn heure boo ñëwee ba makka yegg si nga nga daal di arrêté labbayka ya nga doon wax commencé nag wër kaaba ga juróom-ñaari yoon daw safa ak marwa juróom-ñaari yoon loolu mooy kii doog a yegg mag comme dalay jàngal rek ni ñu war a aje daa tënk li ci des yegg si nga léegi ci bisu juróom-ñetteel ba yaa ngi jëm mi ngi noonu ca la nga xame ne nii mooy non wala kulli xaal waaw noon noon noonu la waxee mu ne boo yegsee ci boobu ba nga wëree ba pare nga bàyyi ba bisu arafa ba bisu arafa yaa ngi continuer sa talbiya yooyu te loolu mooy dem nga mun a min a continuer sa talbiya ba ci bisu arafa bi suñ demee ba jant bi jeng nga daal di wàcc ca fa ñuy war a daje dafa julli dafa julli tisbaar ak takkusaan ngir boole ko loolu yi kon da lay jubal directement ci gi aj lan lay jëf diggante bi nag temps mën na ci am waaye ki nga xam ne day aji màkk moom nga xam ne aj rek moo ko yëkkati bu ñëwee màkk day wër kaab kaaba ga safa ak marwa day wër kaaba ga daw safa ak marwa loolu mooy la ka lislaam sant bu dee aji ko yëkkati du def leneen lu dul loolu gannaaw ba nag bu ñu demee bañ ne suba la arafa mooy bisu yowmu tarwiya ca lay doog a dem arafa ak labbaykaam ya du ko dagg lu dul ni ba ba muy dem ci jullikaay ba ànd ak nit ñi julli wa yustahabu an yadxula makkata non loolu jàng nañ ko mu ne sopp nañ mu dugge fii génn fi heure boo xamee ni nii dugg nañ masjidul haram tamit day wax ni la gën mooy nga dugge ko lu ñuy tuddee baabu bani shayba ca loolu boo gisee ku xam masjidul haram moom mën na la ko woon mi ngi noonu ca bunt yi ci bëri dañ koy numéroté di ci def ay tur boo yegsee nga daal di jubal directement ci xajarul aswad xajarul aswad nga daal di koy fóon fóon boobu nag moom mbir la boo xamee ne nii jàpp naa ni un pour cent yi sax mënuñu ko def mi ngi noonu un pour cent yi sax xalaatuñu di ko def léegi ndax fóon ko moom nekk na coono boo xam ne nii jéggi na dayoo boo ko mënta fóon nga laal ko ak sa loxo mi ngi noonu laal loxo bi la nga xam ne moom mooy sa gémmiñ loolu kon lay wax ci ngëneel yi nekk ci wër kaaba ga gannaaw ba mu la waxee wër kaaba gi ci boppam ngëneel bi nekk ci wër kaaba ngëneel bi nekk ci wër kaaba ga bokk na ca nga fexe ba fóon xajarul aswad wala nga raay xajarul aswad su dee ni mënuloo ko fóon mënuloo ko raay it bi nga yegg see ba ci foofu nga tàllal sa loxo daal di continuer mi ngi noonu su dee da ngay jël beneen bind mu ne summa yatuufu wal baytu ala yasaarihi gannaaw ba na nga commencé wër bàyyi kaaba ga sa loxo càmmooñ sabata sabata atwaaf sabata atwaaf muy juróom-ñaari tawaaf salaasata xababa ñetti yoo xam ne da nga koy ñukku summa arbaata mashiyan ak ñeenti yoo xam ne da nga koy dox wa yastaslimu kullama marra bihi gannaaw ba muy raay xajarul aswad heure bu ko rombee kama zakar na comme niñ ko waxe sànq wa yukabbir boole ko kabbar wala yastaslimu ruknal yamani bi fiihi la nga xam ne moom mooy waa pied ba ñuy wax pied ba féetee yemen mooy xajarul aswad pied ba nga xam ne moom ngay jot doo ko yegsi ci xajarul aswad kooku dañ koy raay waaye kenn du ko fóon walakin bi yadihi ci loxoom nga la koy raaye summa yadauha ala fiihi gannaaw ba mën ngaa teg sa loxo sa gémmiñ min gayri taqbil ci lu àndul ak di fóon loxoom fa ida tamma tawaafuhu suñ demee ba wër kaabaam ga mat rakaa inda almaqaami rakaatayn mu dem ca maqaamu ibrahim julli fa ñaari rakka summa istaslama alxajar inqadara gannaaw ba mu dem daal di foonaat xajarul aswad wala mu ray ko bu amee kattan summa yaxruju ila safa gannaaw ba mu daal di génn jëm ca safa fa yaqifu alayhi li du'a gannaaw ba mu taxaw fa ngir ñaan summa yas'a ila al marwa gannaaw ba mu dem jëm ca marwa wa yaxabu fi batni al masil gannaaw ba mu daal di ñukk ca la nga xam ne muy biir xurwa mi jaar fa ida ata al marwa su yegsee ca marwa nag waqafa alayha di du'a mu taxawaat fa ngir ñaan suma yas'a ila safa gannaaw bu mu dawaat jëm ca safa yafalu dhalika sab'a marat dana def loolu juróom ñaari yoon fa yaqifu bi dhalika arba'a waqafat su boobaa dana ca taxaw ñeenti taxawaay ala safa wa arba'an ala al marwa mu ñeenti taxawaay ca safa ak ñeenti taxawaay ca marwa mi ngi noonu kon mbokk fii day wax ni soo ñëwee di wër kaaba gi kaaba gi sa càmmoñ nga koy bàyyi léegi nag jóge ndeyjoor di wër jëm càmmoñ ca loolu it bokk na ci benn mbir boo xam ne nii scientifique yi wax nañ ko nee nañ biddiw yi nekk kaw asamaan yépp noonu la ñuy wëri dañuy jóge ndeyjoor jëm càmmoñ nii la ñuy wëri ngi noonu noonu nga xam ne nit ñi noonu la ñuy wëre kaaba gi nit ñi noonu la asamaan yi di wëri loolu muy won ki jox ordre waa asamaan moo wàcce ordre am ci kaw suuf sopp nañ ci góor gi doog a ñëw ci wër kaaba gi pour njëlbeenu yoonam mooy bu yegsee bu koy wër mu xaw a waaxu tuuti doonte ne loolu ak mbooloo ma fay nekk léegi jafe la nit ki def ko ñetti tuur yépp dañu bëggoon nga daal di koy mel ni luy ñukk ca loolu it amoon na sabab sabab bi mooy waa yonent bi alayhi salaam bi mu ànd ak saxaaba yi ñu gàddaay dem Madina toog nañ juróom-ñaari at ñëwuñu Makka waa Makka naan jullit ñi de boo leen gisee ña nga yooyo yooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen suñu demee yéen ñëpp génne leen seeni mbagg ca bu ngeen di wër kaaba gi na ngeen ñukk bañ gis énergie ak force bi nekk ci yéen bu ko defee trois tours yi ñu ñukk ko biñ ñëwee waa makk yéemu waa ñii lañ doon wax naan dañoo yooy ilaahi loolee ci jamonoy Omar ba islam am doole gox yooyu yëpp nekk ay jurit xalaatoon na sax ne te ma koo bàyyi te ma koo tere gannaaw ba nag mu ne yàlla ak yeneen tam ñoo xam sunna boobu ñu continué ko saxal kon loolu it góor ñi lañ ko sant sant ñu ko jigéen ña su dee wër nga kaaba ga boobu juróom-ñaari yoon mu ne nga daal di dem la nga xamee ne nii mooy xajarul aswad nga daal di koy fóon bëgg nañ nit boo rombee kaaba gi mooy pilier bi xajarul aswad nekk pilier bi nga xam ne moom ngay jëkk a jot doog caa yegg booy wër loolu la ñu tudde ruknu yamani foofu it nga daal di koy raay ndax xam ngeen ne kaaba gi ñeenti pied la waaye ñaari pied yi rek ñoo nekk ci fondement Ibrahim tey masalan waa Makka dañu demoon di tabaxaat kaaba gi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen bopp ñu ne néegu yàlla bii kenn du ci def lu dul alal joo xam ne alal ju baax kese la duñ fi def riba duñ fi def sàcc duñ fi def nangam alal joo xam ne wóor na la fa mu jóge wér na lañ amoon ci alal dajale ko matewul tabax kaaba gi yëpp ñu jël lañ ca man yëkkati ko daa ji la ca des ñu utal ko benn wërmbal noonu loolu ngay gis xajarul ismail loolu ñuy wërmbal noonu ci kaaba gi la bokk kon dafa waroon am pied yu dem ba fële léegi nag kon ñaari pied yi rek ñoo teg ci fondement Ibrahim waaye yeneen ñaari pied yi ci des yooyu tegewul ci fondement Ibrahim ndax fondement Ibrahim ma nga fële ca gannaaw demi cercle ba looloo tax boo ñëwoon di wër kaaba gi fi ngay fóon mooy xajarul aswad ak pied bi ngay jëkk a jot ba nga xam ne moo tege ci fondement Ibrahim kese mais yeneen pied kaaba gi kenn du ko raay hatta kaaba gi ci boppam kenn du ko raay waaye xam nga nit ñi buñ jógee fa sori ñoom buñ ñëwee ci kaaba gi dañuy këpp ci kaaba gi kii kii waaye la nga xam ne moom lañ yoonal mooy xajarul aswad ak ruknul yamani loolu lañu yoonal nit ki di ko raay di ko jëblu la nga xam ne mooy barkeeloo ko loolu kon la wax ci wàllu googi soo wëree ba wër bi jeex dañoo bëgg nga dem ci maqaamu ibrahim maqaam ibrahim benn place la boo xam ne booy seetaan télé sax da nga ko gis ñu décalé ko ne le bu njëkk dafa susun ci kaaba gi biñ demee ba lislaam mbooloo mi bëri nit ñi di ci fakkastalu di ci gaanu ca la ko omar décalé na li boo wëree kaaba gi juróom-ñaari yoon dañoo bëgg nga dem ca côté boobee julli fa ñaari rakka soo jullee ñaari rakka pare nga dellu si waat ci xajarul aswad soo ko mënee fóon xayrun wala nga raay ko wala nga kabbar daal di génn soo génnee nga daal di jëm fi ñuy tuddee safa boo yegsee ci safa nga taxaw ñaan mi ngi noonu yooyu yépp da ngay gis am na ay ñaan yu ñëw ci téere yi donte ne ne du ne loolu rek nga war a wax ñaan moom mooy li nga xam rek ci lépp looy ñaan ci yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira bu dee nag ki jàng moom mën na jàng inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawaf bihima gannaaw ba ñaan ñaan yi nga xam ne rat na ci su ci sunna loolu bëri na waaye daal nañu xam ni du ne yooyu rek la ñu war a ñaan soo taxawee jàkkaarloo kaabe gi ñaan gannaaw ba da nga wàcc jëm marwa mu nekk lu jege quatre cent mètres soo demee ba ci diggante bi am na luñ matérialisé léegi ay lampe yu verte yoo xam ne boo ci yegsee da ngay xam ne fii moom bu dee góor a dañ laa sant nga ñukk tuuti loolu it dana am jaw na boo xam ne doo ko mën jigéen moom santuñu ko loolu soo ñukkee ba ca beneen lampe ba nga dox normal ba yegg marwa nga taxaw ci kaw marwa ñaan loolu di benn tuur benn benn benn benn ngoog soo jógee ca marwa dellusiwaat muy deux waaye malheureusement lu bari ci nit ñi dañuy dégg ne safa ak marwa dañ koy wër juróom-ñaari yoon ñoom ñu jàpp ni ni ñuy wëre kaabe gi lañ koy def da ngay jóge safa dem marwa dellusiwaat muy un nga delluwaat muy deux am nañ suñu benn doom buy doomu waa jàkka ji ndeysaan ren loolu la def quatorze fois la daw safa ak marwa yaa ngi dégg loolu moom da ngay gis ñàkk kii la waaye benn bi mooy un dellusi bi mooy deux fu nekk foofa dem da ngay taxaw ñaan looloo tax da ngay gis ne da ngay taxaw fu nekk ñeent ñeenti ñeenti yoon ñaan mi ngi noonu lii kon moo aju mbokk ci safa ak ak marwa boobee nga xam ne nii su dee ne yow tey da ngay aj màkka def nga ko ba pare sa coono bu njëkk moom foofu la yem léegi nag li ñuy xaar mooy bisu juróom-ñetteel ba nga génn dem bu doon da ngay umra ci loolu xam naa dimanche bi di ñëw lañ koy jàng bu doon da ngay umra it sa umra jeex na dañu lay sant rek mooy demal laal sa karaw dara imma nga wat ko bu dee umra umra rek moo la yëkkati su dee at ngay ñëw nag la gën mooy nga wàññi ko bañ koo wat loolu kon mbokk mi ngi noonu bu ñu jëlaatee beneen bind mu ne nag summa yaxruju yawma tarwiya gannaaw ba mu génn ca bisu tarwiya mooy juróom-ñetteelu fan ba ci bisu tabaski ila mina jëm place bu ñuy wax mina ñu ngi noonu fa yusalli biha zuhra wal asra wal maghriba wal ishaa wa subha mu julli fa juróomi julli summa yamdi ila arafat gannaaw ba mu jóg nag jëm arafat wala yad'u talbiyata fi hadha kullihi hatta tazula ash-shams min yawmi arafa loolu lépp du dagg labbayka ba muy wax ci bis yooyu ci ci waxtu yooyu ba baa jant ba di jéng ca bisu arafa wa yaruuha ila musallaha mu daa di gont jëm ca julleekaayam ba wal yatatahhar qabla rawaahihi na sangu nag avant muy gont fa muy war a julli fa yajma'u bayna zuhri wal asr mu boole diggante tisbaar ak takkusaan ma al imam ak imam ba jiite aj ga suma yaruuhu ma'ahu ila mawqifi arafa gannaaw bu mu dem ca taxawaayu arafa si ñu tudde jabalu rahma fa yaqifu ma'ahu ila gurubi shams mu taxaw ànd ak imam ba ba jant ba di so suma yadfa'u bi daf'ihi ila al muzdalifa gannaaw ba nag mu daal di wàcc si gan ànd ak wàccuk imam ay jógee arafat jëm muzdalifa fa yusalli ma'ahu bil muzdalifa al maghrib wal isha mu ànd ak imam julli ca muzdalifa timis ak gee wa subaha ak suba suma yaqifu ma'ahu gannaaw bu mu taxaw ànd ak imam bil mash'ar al haram ci li ñuy tëddee place mashallah haram ba nekk ca muzdalifa yawma izin biha bisu keroog ca place boobee su ma yadfa'u bi qurbi tulu'i shams gannaaw ba mu wàccaat buñ demee ba jant bay waaj a fenk ila mina mu wàcc si mina wa yuharrik daabatahu bi batnin muhassir daa di gaawal war waayam ca li ñuy wax xuru muhassir fañ fege woon abrahata ma doon bëgg a toj kaaba ga fa iza wasala ila ila mina su demee ba yegg ca mina rama jamra jamrat al aqaba mu sànni jamra ba nga xam ne nii mooy bu mag bu mujj bi sab'i xasayat ci juróom-ñaari xeer misla xasal xazf lu mel ne xeer xazf xazf mooy lu ñu téeg ñaari baaraam wa yukabbir ma kulli xasa gannaaw bu mu kabbar ànd ak bépp xeer mi ngi noonu mbokk kon day wax fii ci ni kii aj màkka bu demee ba juróom-ñetteelu fan ba ca la nag mboolem ujaaj yi nag di daje wax naa la sànq ne depuis ñu wari kum neex dem màkka waajal ak ji am maana kañ la mbooloom yépp di ànd mooy buñ ñuy suba la arafa ñu tudde ko yowmu tarwiya daanañ ko tudde yow mu tarwiya mooy bisu root bi ndax ndox ma nga fa nar a yóbbu yépp ndax ndox moo fay jëfandikoo yépp yaa ko fay yóbbu foofu yépp amul woon ndox looloo tax aj màkk bu jëkk metti woon lool su ko defee boo yeggee Mina Mina nee na nga julli fa juróomi waxtu boo xëyee suba nga daal di fay jógee dem Arafat continuer say talbiya yi nga doon def di ko def ba ba jant ba di jéng nga dem ànd ak imam julli tisbaar ak takkusaan gannaaw ba dem fa nga xam ne mooy fa ñuy taxawee di ñaan doonte ne yonent bi alayhi salaam doon wax arafat yépp foofu taxaw baax na mi ngi noonu am na nag benn montagne booy gis ci télévision bi nit ñi di ci yéeg ak yépp ñu tudd ko jabalu rahma waaye yonent bi alayhi salaam doon wax arafat fépp taxawaay la boo fa taxawee toog fa ba jant bi soo nga doog a génn dem fu ñuy wax muzdalifa boole timis ak gee jullee fa arafat timis mi ngi lay fekkee arafat waaye kenn du fa jullee timis sunna mooy bàyyil timis ji ba yegg muzdalifa boole koo gee julli ko loolee kon moom la ñuy wax ci wàllu googe mi ngi waxit fi ñuy wax mash'aril haram foofee quatre-vingts pour cent ñi dem Makka xamuñu ko sax waaye yonent bi alayhi salaam di doon wax naan aljamu mooy muzdalifa yëpp yëpp foo taxaw taxawaay la gannaaw ba boo demee muzdalifa fanaan fa ba suba ba jant bi waaj a fenk te loolu mooy la nga xam ne mooy la gën donte ne nit ñi dañ fay jaar rek romb dem seen yoon nga daal di wut juróom-ñaari xeer yoo xam ne ñaari baaraam xeer bu ne ñaari baaraam mën na koo sànni ba ay xeer yu rëy yu ñuy gàddu nii jamra yi ñett la am nañu si jamratul aqaba nga xam ne moom moom mooy bu mujj ba di moom ngay sànni juróom-ñaari xeer ca bis bu njëkk boobee nga xamee ne nii moom mooy bisu tabaski ba ñu jeexal bindu at bi rek mu ne kon summa yanhar gannaaw ba mu daal di rey la nga xam ne moom lay rey in kaana ma'ahu hadiyun su dee ànd nag hadiy bu muy rey su ma yaxliq gannaaw ba mu wat boppam su ma ya'til bayta gannaaw ba muy ñëw ca Kaaba ga fa yufiidu mu daal di wàcc si ca Kaaba ga ci li ñuy tudde tawaaful ifaada wa yatuufu sab'an mu wër ko juróom-ñaari yoon wa yarka'u mu daal di kabbar summa yuqiimu yar kaw ay mu julli ñaari yo ñaari rakka summa yuqiimu bi mina gannaaw ba nag mu daal di taxaw ca mina salaasata ayyaam ñetti bis fa ida zalat shams heure bu jengee jant ba heure tisbaar min kulli yawmin min haa ci bés bu nekk ramal jamra mu dem sànni jamra ba alati tali mina ba sës ci mina bi sabi xasaya ci juróom-ñaari yoon yukabbiru maa kulli xasaat muy wax allahu akbar ànd ak bépp xeer su ma yarmil jamratayni mu sànni yeneen ñaari jamra yépp kullu ja kulla jamraatin bi misli zalik jamra bu nekk ci lu mel noonu wa yukabbiru maa kulli xasa day kabbar ànd ak bépp xeer wa yaqifu li du'a gannaaw bu mu taxaw ngir ñaan bi istri ramyi fil jamra gannaaw ba mu sànni jamra ba pare jamratul ula wa saaniya ci jamra bu njëkk ba ak ñaareel ba waaye wala yaqifu inda jamratil aqba jamra bu mujj ba moom bu ko sànnee day continue wal yansarif na dem fa ida rama fil yawmi thalis su dee sànni na ci bisu ñetteel ba wa huwa rabiu yawmi nahr muy tombe ñeenteelu fan ci bisu ca tabaski ga insarafa ila makka su boobaa day delluwaat makka waqad tamma hajjahu su boobaa ajam ga mat na wa inshaa taajjala fi yawmayni su ko neexee nag mu teel a dem Makka gannaaw ñaari fan ya kese min ayaami mina ca bisi mina ya fa rama mu daal di sànni wan sarafa mu daal di dem fa ida xaraja min Makka su génnee Makka taafalil wada balaa génne dana wër kaaba gi ngir tàggoo ko ko wa rakaa julli ñaari rakka wan sarafa daal di nibbi mi ngi noonu ba ko kon day wax rek ne ki jógee arafa jaar muzdalifa su xëyee suba day dem mina su demee mina sànni jamra su sànnee jamra ba pare daa di rey te loolee daanaka nit ñi defatuñ ko léegi ay tikke ngay jël fañ lay reyal ñu reyal la ko fa gannaaw ba bu dee ne rey nga nga wat sa bopp kon li ñuy wax mooy ki dem um aji ji makka su sànnee jamraam gannaaw ba day watu mi ngi noonu day wat boppam su watee boppam ba pare dem nag wàcc màkka def lu ñu tuddee tawaaful ifaada ca kooku mooy ponk ci aj mooy ponk la ci aj gi bu wëree kaaba ga juróom-ñaari yoon toog nag mii naa ñetti fan su dee bëgg na koo matal wax na la ne bu ko bu la neexee nga yem ci ñaari fan yi ñetti fan yi ngay def mun a lan moo cay xew mooy boo bàyyee ba jant bi tisbaar nga daal di génn dem ca jamra ya jamra bu ne nga sànni ko juróom-ñaari xeer xeer bu nekk boo koy sànni nga kàbbar jamra bu nekk ñaari jamra yi boo ko sànnee ba juróom-ñaari xeer yi mat nga taxaw ñaan ñetteelu jamra ba boo ko sànnee doo ñaan da ngay daal di dem wàcc ca kaaba ga soo demee daal di dem dem ni bi bu dee ne da ngaa bëgg ni bi da ngay dem wër kaaba ga soo wëree kaaba ga muy wër gu mujj nga daal di nibbi loolu kon muy wane ne kiy aj makka ñetti wër kaaba ga lañ ko yoonal wër kaaba ga bi nga ñëwee moom la ñu tudde tawaaful qudum wër kaaba ga bi su tabaski ba muy tawaaful ifaada nekk ponk ci aj gi wër kaaba ga booy nibbi muy tawaaful wada heure boo xam ne yaa ngi tàggu kaaba ga mbokk kon borom téere bi nii la tënkee la nga xam ne mooy aj makka ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko yombal képp kenn ci ñun joxe ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax kaaba gi couleur bi mu am ay bakkaar ñoo ko def noonu kaaba gi couleur bi mu am mooy tissu bu ñuul boobu dañ ko ko woddee loolu yi dafa am benn usine boo xam ne spécial at bi yépp la muy liggéey mooy defar koddaayu kaaba gi loolu ngeen gis ni bind ko ci yépp ay fil d'or pur lañ koy defaree la ñuy wax ci bàkkaar kay mooy xajarul aswad ñëw na ci ay riwaaya ni bi muy jóge aljanna dafa leer nañ ba leeraay ba sax ñoo ko daan gis fu sori bàkkaar yi doomu aadama yi nag moo dem ba ñuulal ko loolu moom ñëw na ci ay riwaaya wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam yaakum naam taxawaayu arafa loolu mooy teew ca arafa nga teew ca arafa ak lu mu néew néew ci temps loolu la ñuy tuddee taxawaayu arafa la nga xamee ne nii moom moo cay sunna mooy nga daal di fay toog ba ba jant ba di so loolu ci waajibaat yi la bokk waaye bu dee rukn bi moom mooy nga teew arafa na doon nag boo demee da ngay toog di attaayaam da ngay tëddam da ngay kii dugation taxaw rasul sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam gis nañu ne ba mu demee julli ñaari rakk julli tisbaar ak takkusaan ba pare dafa dem fi ñuy tuddee jabalul rahma taxaw ca suuf ak gileemam tisbaar la taxaw di ñaan ba ba jant bi di so sallallahu alayhi wa sallam ci kaw gileem gi la taxaw di ñaan ba ba jant bi di so loolee kon day wone ne jullit war naa profité ci loolu mooy di toog di ñaan bu doon da ngaa nekk ca waruwaay it nga toog sa waruwaay di ñaan waaye daal firiwul ni arafat dañoo war a taxaw journée bi yépp déedéet teewaay ba la ñuy tuddee taxawaayu arafa wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam jigéen bi war a gis baax gis gis baax wax naa la sànq ni lépp lu ñuy def ci aj mën na ko def Muna Arfat Jamrat Safa ak Marwa lu ne mën na ko def sauf wër Kaaba wër Kaaba googu nag loolu da ngay gis ni fokk mu toog ba baaxam jeex mu doog koo wër loolu moom ponk la ci nuñ koy waxee aj Makka fokk mu wër Kaaba gi tawaaful ifaada bokk ne daal loo xam ne lenn borom xam-xam teggil nañ ko ko muy liñ tuddee tawaaful wada muy wërug tàggatoo dem su dee ne. jamono tey ji nga xam ne avion mi ngi koy xaar mënu faa toog di wër loolee yenn borom xam-xam lu mel ni Cheikh Ousaymin ñoom nee nañ ko mel noonu mën na ngemb ba mu wóor ko ne te loolu sax bu jëkkal waaye jamono tey ji jigéen ñi ak seen moyen amul dara luy génn ci ñoom ko mel noonu mën na dem wër kaaba gi bu dee ne ngant bu tar moo nekk ci moom mën na wër kaaba gi ak réglam loolee da ngay gis ne moom la ñuy wax ca wàllu googee bu dee ne contrainte mooy tax ndax contrainte yi am nii amul woon bu njëkk waaye rawatina tey jii sunu jamonoy tey jii moom loolu mënta ñàkk loolu daal la borom xam-xam yi màkk di ubbee wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal waaw bismillah naam wa waaleykum salaam wa rahmatullah
mu dem ba ci bi gis ne day far di feebar lu bari léegi mu ne ndax su génnee day fekk war na wala wóor
waaw ala kulli xaal comme génn nañ màkk kon muy laaj bu mujj woon waaw ala kulli xaal ndax dafa bëggoon a takk benn soxna gannaaw ba mu yëg ne day feebar feebar yu bari léegi ndax bu ko bàyyee ci loolu dañuy jàpp ñu daa woor def jàpp ñu ne daa woor bu dee moom xalaat ne ni du ma ko mën a yor ak feebaram loolee moom da ngay gis ne duñ ko jàpp woor tey jii boo demoon ci yenn dëkk ay yenn dëkk arab yi sax dañuy certificat de mariage dañ ciy impo dañ ciy leen di imposer ñu seet ku nekk feebar yi nekk ci yow mi ngi noonu ndax tey jii da ngay gis masalan waa ji mën na nekk drépano nekk AS fekk soxnaam AS la suñu siyee seen ñu dem du baax ak yeneen bi dema noonu kon daal waa ji bu dee ne moom dafa bëgg a takk soxna si gannaaw bu mu yëg ne daa feebar bu ca génnee loolu dara newu ci am na benn waay bu dee mi ngi may dégg damay jàngale rek suñu waa jàkka ji la bokk dafa ñëw woon ma benn lettre ci ne soxna soo xam ne da ko doon bëgg a takk soxna si na ko ay li yéwén man dama sida léegi nag daal loolu laa la bëgg a xamal mu ñëw wax ma ko ma ne ko ah man de li ma ci jaaxal moom nee na sida bi ci la jëkkëram faatu moom dafa sida doomam bi mu ci am sax dafa sida yow jeune nga amagoo soxna te daal seeti keneen yaa ngi day léegi moom xëy na parce que bépp góor booy ànd ak moom it du mën a ànd ak moom na góor ñi di ànd ak seeni soxna fokk moom ay protection ci yaakaaruñ ci am doom kon kooku ko mel noonu xëy na bu dajeeg beneen góor boo xam ne moom am na njaboot ba pare loolu peut-être du ko déranger mais yow un jeune di doog a dugg ci àdduna di ànd ak koo xamee ni ni moom wax na la boppam nii laa mel man daal bu doon conseiller ma la jox loolu doo ci dugg loolu benn misaal rek la ci ala kulli xaal bu dee ne nag feebar ba feebar la boo xam ne jàpp nga ne mën nga koo gérer loolu moom jaamu yàlla gu rëy la waaye daal li muy bëgg a wax daal soo ragalee ne daf lay sonal loolee boo ci génn it waxuñu da nga trahir mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk